tentative yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy def pour traduire le Sénégal devant la CPI yow loolu boo ko gisee ban ban sentiment ngay am naka koy gisee ak ak ak la complicité de leur avocat Juan Branco qui fait beaucoup beaucoup beaucoup de bruit. man moom xam nga sa à dire euh, bu ñu bëggee wax yëfu Sénégal nañu ko wax fii man je suis un personnage décomplexé. Mhm. nee naa la dëkk naa ci dëkk yooyu def naa fa li ma fa war a def ñëw naa suma dëkk. tout le temps que j'ai été là-bas je n'avais pas de position politique j'avais des positions associatives mm lutte contre le racisme xeex pour que suñu ay droits ñu gën ko respecter mais man mësuma immiscé wu dans la politique française di ci am sax ne serait que une position publique donc man dama jàpp ne euh, c'est pas un avocat euh, déviant il euh, un avocat international euh, moo may jox des leçons il défend son client. non defal naa ko rek du moo ñuy jox ay leçons sur la CPI quand nous avons le plaisir de pouvoir entendre maître Pape Sène ou le plaisir de pouvoir lire maître Sidiki Kaba qui mm. connaît bien la question parce que je pense même que bind na carrément un livre sur est-ce que est-ce que la CPI c'était pas la justice une justice à double vitesse euh, je pense su euh, su su ma juumul mm-hmm. même si je l'ai pas lu je pense que c'est quelqu'un boo xamante ne il est quand même respecté sur la question Il a voix au chapitre. En tout cas, il a voix au chapitre. Alors, ben, donc, soyons clairs. Euh, Souma amee ce plaisir-là de pouvoir euh, entendre maître Massokhna Kane, entendre euh, maître Boukounta Diallo, entendre euh, maître Pape Sène, entendre maître Oumar Youm, entendre maître Moussa Bokar Thiam, entendre euh, maître maître Bassirou Ngom, mais pourquoi moi euh, bon sang je vais aller def ay paa naan damay déglu ay ay ay branco mais kuy Branco ak fu mu. mais waru leen alerté maanaam ci pratique yi nga xam ne gis nañ ko dernièrement parce que il est en train de rassembler des preuves ah au lieu de de de de. de de de de wala. xam euh, nga de le démentir est ce que jéemu leen waru leen xool aussi une enquête interne. par rapport ak ce qui s' est passé man man Mamadou on a besoin de savoir. man Mamadou avant mu yegg ces pays. Mamadou Aouda man je ne suis là pour démentir personne n'est-ce pas. Mhm. su ko démentir jaree. ña nga xa y a des personnes appropriées assez outillées dans l'État pour le faire man loolu laa wax dama ne ñun on est assez outillés pour faire face à qui que ce soit et démonter qui que ce soit. mais est-ce que la meilleure manière de faire une enquête. boo xam ne mooy firndeel lépp mais mais y a une question. on nous promet cette enquête depuis 2021. y une question morale y a une question morale qui est mm-hmm. xam nga c'est pas pour rien que je te que. moo man ak su yeneen suñu ay génération wu euh, euh, euh, sénégalais dañoo décomplexé mais décomplexé à tous les niveaux parce que nous nous sommes nés après les indépendances mm-hmm. ñun fekkee wuñu ay ay colonisation ay ligothèque ay waxi dof ñun ñun ñun nekk mosuñoo fekkee yooyu ñun benn ñaar jàng nañu fa nit ñi jàngee mm-hmm. suñu ay références religieuses même man Serigne Touba laa gëm taalibe Serigne Mbacke Mad Serigne Mbacke Madina la Serigne mm-hmm. Cheikh Bombali donc c' encore des références sénégalaises exclusivement euh, suñu ay références intellectuelles c' est Cheikh Anta Diop c' est Amadou Matar Mbow c' est nga xamante ne nii suñu dëkk la ñu nekk troisièmement nos références politiques c' est Amath Dansokho et Macky Sall kon ñun nous pas man xaaruma leçon bu may war a recevoir de qui que ce soit. je suis ci référence yi. Sénégal vraiment amul lu mu ciy jàng ci keneen. mais maintenant par rapport mille vingt enquête bu war bi jaadu est-ce que ñàkk ko taxawal wala jox nit ñi ay firnde moo indi coow li yëpp. non dama ne un responsable comme ni ñu ko waxee keroog bi nga xamante ne gouvernement bi génn na. Mhm. dañu ne danañu mener les enquêtes jusqu'à leur terme pour que la lumière soit faite ñun foofu. sur foofu la ñuy xaar xam nga enquête aussi du lu gaaw. du lu yomb peut-être. d'accord damay mën a comprendre nit ki ca fa muy toll ak sensibilité ba muy liggéeyee xëy na peut-être preuve bi war la soxla moo tax mettre en œuvre tout sa qu'il faut pour que mu leer mën naa jël temps. Mm-hmm. mën naa soxla yeneen i njumtuwaay yeneen i façon taxawaay mais man am naa yaakaar u njort naa. wóor na ma wala biir naa nekk ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk réew mi danañu yeggale ci loolu.